إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله وهي فيك تجلتي وتحسبها غيران وغيرك ليست يا أولا يا آخرا وظاهر ظاهر ويا باطنا عنه ريقا لنا أظهر بعدت بقرب واختتمت بظهرتي ويعجبا الظاهر وظاهر والاسماء والاوصاف والكون جملة حقيقة عين الجاه أو أجل أجل أو أو أنا خليفة مين مين الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله

الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا yàlla. ñu ngi sant yàlla. alhamdulilah. yàlla mi nga xam ne mooy maye wér. may nañu wér. you will see that I am in good health now. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu ngi nuyu mboolem mbokk yi fi nekk. di leen ndokkeel ci guddi gu mag gii. muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tant ku defar yoon bi néeg bu mel nii di tudd yàlla ci biir néeg bi di jokku ci boromam ci biir néeg bi wax dëgg yàlla war naa sant yàlla kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax te ñaan yàlla yàlla ñu yàlla moo tax li guddi kan la ñuy waxtaanee tey mooy ki gën ci mbindeef yi mooy ki nga xam ne yàlla bindutoon dara amaluwutoon dara buggutoon dara faalewutoon dara bi mu demee ba ne bëgg naa wane sama kattan ci amal koo xam ne moo may remplacer moo uutu mooy nekk suma représentant ci kaw àddina bi yëpp ci la daal di tànn kan Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yaay borom mission bi te moom yàlla na ko ne mooy borom mission bi ba mu nekkee xale bi na sax wax na lu gën a ne na euh, euh, ana kuntu nabiyan aaliman bi nubuwati wa aadamun jadilun fi tinatihi man nekkoon naa di yonant xam ne man yonant laa te booba aadama nga xam ne moom la ñu wax ne mooy bàyyi mbindeefu ni ñu ngi ko dënd dafa ko ci roxo kon ba muy nekk yonantu booba a nekk fa a nekk fa malaaka nekk fa jinne nekk fa dara nekk fa lu dul kenn ak yàlla ki moo njëkk moo mujj moo feeñ moo dugg yàlla bi nga xam ne dara taw ko te lu mu bëgg dana am moo bëgg yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa di leen ndokkeel ci guddi gu mag gii guddi goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko moom te képp koo xam ne yaa ngi koy teral yàlla dina la teral bes boo xam ne ne teral nga dootul amati mu yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim muy bés boo xam ne mu ne alal du fa jëriñ ay doom duñ fa jëriñ lu may koo xam ne dafa ñëw ak xol boo xam ne bi àddina noonu la doon dundee kooku daal mooy ki nga xam ne mooy mucc ci bés boobu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa mooy shafiul wara mooy ki nga xam ne bu ñëpp tiitee yowmal qiyaamati moom du tiit parce que moom lu tax du tiit yonent bi yàlla daf koo tànnal lépp loo xam ne war na war na faa rek yàlla daf ko ca tànnal la gën bu dee ay baay daf koo tànnal baay ya gën bu dee suuf daf koo tànnal suuf sa gën muy suuf su mag bu dee xam-xam daf koo tànnal xam-xam ya gën muy xam-xamu maarifatu billahi ak xam-xamu xam ya sa diine di ko defee comme ni nga ko waree bu fekkee ne da da njàmbaar la yàlla daf koo tànnal njàmbaar gi gën a mag njàmbaar yi moo tax mboolem yonent yi kenn ku ci nekk am nga luñ lay sikkee ba mu des moom sallallahu alayhi wa sallam moom amul benn sikk moom dañuy wax ne moom téere bu ubbi la amul secret léppam mbaax la léppam teraanga la léppam kawe la léppam jàmm la léppam defar mindaafoon la kooku mooy yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne sallallahu moom lañ defal guddi gii tey ci place bii fii ci Cincinnati di ko màggal ndax ñun loolu lañ xam yonent bi rek la lañ ñu xamal bàyyi xamalu ñu leneen loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ nag biñ waxee ne ashhadu an la ilaha illa allah dañ cee teg ashhadu anna muhammadan rasulullah biñ xamee ne yàlla rek mooy yàlla yàlla xamal nañu nag muhammad rek mooy muhammad moom la ko bàyyi tëggee na ko muhammadu abdullahi gayru mushabbahi bihi shab basharun man raama dalika sabbihi Mouhamad ki nga xam ne mooy Mouhamad Abdullah parce que bàyyi dina takk ñaari Mouhamad Mouhamad Abdullahi moom la wax ne kooku kenn niruwu ko niruwul kenn kooku mooy Mouhamad Abdullahi waaye Mouhamad ibnu Abdullahi mooy ki nga xam ne bi yàlla naree bind bindaafoon yi moom la bind mun ñu nekk ñëpp ay copim minaafoon yëpp ay copie yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam hatta doomu aadama bi ci yàlla gën a bëgg moo tax mu jox ko meloom ndax yàlla dafa wax ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi yàlla bi muy bind aadama daf ko bind ci portrait moom te portrait bi yàlla mooy mooy mim hadam dellu miim daal kon yonent yàlla mooy portrait bi nga xam ne koo xool rek gis nga yàlla sallallahu alayhi wa sallam te mooy jaamu yàlla boo xam ne képp ku ma sa julli moo la ci jiitu képp ku ma sa oor moo la ci jiitu képp ku ma sa aj moo la ci jiitu képp kuy dundale alal moo la ci jiitu képp kuy joxe xam-xam moo la ci jiitu képp ku ñemee xeex moo la ci jiitu sallallahu alayhi wa sallam ba sahaaba yi dañ daan wax ne bu xeex bi tàngaan ba tàng ñun ñëpp dañuy dem làqu ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi moom rek mooy nekk ci kanam benn bés ci xaswatu Hunayn bi nga xamee ne julli ñaa ngi dem foofa ñu ne tey de xare bi moom ñun ñoo koy gañee parce que dañu daan ëpp ay nit waaye bii yoon moom kenn duñu gañe biñ ko waxee nag yàlla ne xaaral ma bàyyi leen ak seen bopp yàlla bàyyi leen seen bopp biñ ne buñ commencé xeex rek yàlla def ragal ci bi xoli jullit yi ñëpp ñu daw Seydina Omar ci boppam nga xam ne ku ne xam na ko mu ngi wax ne man boo ma gisee maa ngi mel ni sikkat buy daw ci ko ci ko ay doj ñëpp a dawoon keroog mais keroog bi nga xam ne ñëpp daw nañ yonent bi mu nga waroon baxlaam bi ñu daan wax dul dul Seydina Abbas doon ko ommat waaye yonent bi dafay puus boppam pour fekk si noon yi delul gannaaw waaye kanam la jëm fekk si noonu yi Abbas muy téema freiné euh, euh, dul dul waaye yoon bi bu ko bu bi daal di koy dóor na ko dul dul ci ndigal la yàlla la nekk yonent bi sallallahu alayhi bu ñuy wax ci njàmbaaram keroog xaswatu laxzaab bi nga gaa ñu dajee gaw Madina wax ne dañuy ñëw fekk ma yonent bi ci biir Medina ñu rey ko moom ay ay sahabaam ñu noppalu ci ñoom waa Medina yëpp jaaxle yonent bi oote conseil guerre biñ dajee yonent bi ne lii bu xewaan lan lan lañ koy fajee Salmaanu Faris yi nga xam ne Faris la dëkk mu yëkkati loxoom ne ko da ngay laaj xalaat wala loolu yàlla digal la mu ne ko damay laaj xalaat waxal mu ne ko ñun lii mu xewaan suñu dëkk bi dañuy gas pax yoo xam ne day wër madina ba nga xam ne ku war fas boo ñëwee ba agsi doo ñëwee jàll doo mën a jàll boo jàllee daanu ci pax mi kon yonent bi ne kon nañ def noonu ñu commencé di gas gas mi même am na am na ay place yoo xam ne daanaka ay weñ weñ ci nekkoon yonent bi daal di digal leen ñuy gas di gas di gas ba ñëw ci balance boo xam ne ñu ne ko kooku daal moom kenn mënu koo gas ndax euh, weñ la boo xam ne mu dugg bu baax ci biir la yonent bi keroog moo ñëw sallallahu alayhi wa bi mu jëlee affaire bi ba mu ko doonee rek affaire bi mu daal mu dal di xar ñaar saxaaba yi daal di continuer seen liggéey te kan yonent bi keroog bi mu koy def booba am na ñetti fan lekkut ñam daaw daana toog weeru lëmm ñam daaw euh, takk ci biir këram sallallahu alayhi wa sallam waaye ñàkk lekk googa mooy julal lekk yi nekk fii de julli ñaa ngi lekk façon ngi lekk bu ne ba di ko di tuura ak jami te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax lu mu lekk moom moo sacrifié boppam pour defar doomu aadama yi l'humanité entière yonent bi moo leen defar kon yonent boobu fu ñu koy màggalee ku fa teew rek am nga chance parce que yàlla dana la xool wax malaaka yi ne bi ni leen ñu fi leen yëpp bu keroog yowmal qiyaamati ma fayante ñoom te yàlla bu lay fay daf lay gëlëmloo ndax daf lay jox loo xam ne après ci li li nga bëgg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bu fekkee ne dem nañu àlaxira itam ba yàlla ne eh, eh, jahannama génneel génnal nga lakk nañu jahannama génn ñëpp tiit ñu ne a ah, lii de kenn mënu ci dara nañ dem ci suñu maam aadama làkku ci moom ñu ñëw ci maam aadama mu ne taluma leen man taluma kenn tey ñu dem ci noox mu ne taluma leen ñu dem ci ibrahim mu ne taluma leen képp fu ñu dem rek ñu ne taluma leen képp fu ñu dem rek mu ne tal taluma leen ñu ne kon nag kenn moo ci des jaar nañ ba agsi ci Isa mu ne taluma leen parce que man dañ ma daan jaamu maag sama yaay te xaw ma daal dana mu jëm nit ñu ne kon nag ku ci des ñu ne Muhammad ibnu Abdillah ñu daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi bu ko daan nettali ba agsi fii dafa wax ne dañoo yéex a ñëw ci moom moo nu yoroon a commencé buñ ko commencé woon kenn du tiit ñëpp da daañ dugg aljanna te kenn du tiit lu may koo xam ne nag dafa bañ a dugg aljanna ndax yonent bi mos naa toog nit ñépp ñooy dugg aljanna ba mu des bañ ñu ne kan mooy bañ a aljanna mu ne ku ma topp yow yaa bëgg a dugg aljanna da nga dugg aljanna ku ma bañ a topp nag yow yaa bañ aljanna da nga dem kon loolu boobu garanti boobu ko moo ko may te xamal ko ko moo wax ko ñu dàbbal yi te gis nga ñu ñi nga xam ne ñu ne nekkoon ay noonam di ko wax lu ne képp kum ci euh, euh, condamné wax na ne yow nangam sa nangam jooju il faut mu dal la otuba yonent na ko alquran xas na ko sax otullin ba'da dalika zanimin an kaana daa maalin waaye ñooñu nga ñoo doxoon noonu yonent bi buñ tuuboon rek dañu mettre yonent en cause waaye nag ñi mu wax ne du ngeen tuub kenn tuubu ñi yàlla bëgg rek nga xam ne ñooy ñiy julli ñoom rek la yàlla nangul tuub moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa lim indi lu leer la lim indi mooy lan mooy alquran alquran lu ko tax a jóg alquran li muy rëy rëy rëy rëy di for for for for ñett yëf a ko tax a jóg euh, euh, digle ak tere ak nettali yi nga xam ne moom la ñi toppoon diggale la ñuy am ëllëg ak ñi xam ne toppuñ diggal la ñuy am ëllëg ñoom itam loolu mu kat moo nekk ci alxuraan lépp moo tax ñuy wax ne al fatiha lixlaas qul wallahu ahadun mooy sulusul alquran mooy ceeru alquran pourquoi parce que alquran comme gëm yàlla la indi digle nga nga def tere nga bàyyi kon ñetti yëf la kon benn benn ci ñett yooyu mooy lixlaas kon moo tax ñu ne lixlaas mooy sulusul alquran kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu yàlla defee jullit jullit yi tey mboolem àdduna bi ñu ngi seetaan jullit ñu leen di rey di leen di anéantir waaye yàlla la neex rek su ko neexoon bu bu yëkkati woon benn eh, eh, biddiw rek dana lakk mboolem lépp ci ko suuf waaye nag rahmaanu rahim dana na du du ma ci àddina ku ma jox ci àddina du ma la jox itam du ma la fi isaab fii waaye ëllëg laa lay isaabee bu ëllëgee nag daañu la laaj soo tontoo mucc soo tontuulee yow yaa xam safara nga kon nag yonent boobu sallallahu alayhi benn waaye dafa ñëw ci moom ne ko dama lay laaj gëñal ma ci yàlla ne ndax yàlla moo la yónni mu gëñ ne yàlla moo ma ko gëñal ma yàlla moo sant nga wax mu gëñ ci yàlla ne yàlla moo ko sant mu ne ma ci yàlla ne yàlla moo moo la sant nga génne asaka ci alal yu bi mu gëñ ne yàlla ko ko sant mu ne ko gëñal ma ci yàlla ne ndax moo la sant nga dem màkka ibal di dibal sa xeet yi ñuy dem màkka mu ne ko waaw waa ji ne yonent bi maa ngi jaayante ak yow ci li nga xam ne moom nga indi waaye nag julli moom danaa ko def mooy julli juróom yi du ma ci teg benn rakk bu ma xasee def julli juróom yi pare naa ci weeru koor bu ma ko oree ba pare pare naa dootuma gàtt nga xam naa loolu ci ci ci lay doon di asaka bu ma xasee jox suma asaka ba pare amul benn miskin bu may saraxati bu ma demee màkk benn yoon tëgg ndënd ak semmiñ la neex benn naqati benn tal yo doxal yontu bi ne ko jaayante naa yow ci loolu bi waa ji dëddee yontu bi ne ko ndax bu fekkee ne li mu wax dëgg la ci moom kon moom aljana la yëm donc aljana yàlla jaayu ko su ko doon jaay kenn du ko jënd waaye daf koo daf koy maye dafay lépp loo xam ne yàlla ko bind daf koy bind rek pour wane ne moom moo mën a bind ba pare su ko ba nit ñi muy alal yeeg muy doom yeeg muy jabar yeeg muy kër yeeg lépp yàlla ko bind te bu ko neexoon bu bind dara bàyyi nit ñi ci ñàkk a nekk ba yàlla jër baa dem passé na foofu ndax bu fekkoon ne bi ñu toll ñoo xam ne daf leen di yërëm nga xamee ne yërëmkat yërëmkat la bu bi ñu toll ñi xam ne dañuy am alal ba mën a dimbale nit kon ñi xamee ne ku baax la bu fekkoon ne ñoo xam ne dañuy jurante umma bi di yokk kon ñi nga xamee ne yàlla mën na loolu waaye loolu yëpp daf koo démontré wane ko ba ñëpp yëpp teg seen bët nga xam ne jant bi day taxaw ñu ñu may ko jëkkër ñu toog tuuti rek yàlla yàlla def mu ëmb ba indi doom doom ji ñëwaat ñu uuf ko daal di koy tudd te bi mu nekkee ci biiram ndeyam kenn fekk ko fa ko yàlla ndax li yaayam daan lekk ci la daan lekk li daan naan ci la daan naan te kenn mësta dégg ku ne man de sama doom ji def maa saw ku ëmb ba bari naan sama doom ji def maa saw wala maa puub amee itam bëriwul de bi ko yàlla bàyyee foofu ba avec xatak moom muy jàllal bi ku gauche droite yàlla na ko kaay ma génne la daal di koy génne ci kaw suuf bi muy génn mu ngi jooy lan moo tax muy jooy dafa wax ne man fii ma génn fu ma jëm man ndax dama danaa fa am li ma amoon ci sama biir yaay fii wala du ma ko am yàlla génne ko daal ko koy indi ci kaw suuf ñu ah, tudd ko bàyyi ko ñu toog ay weer mu commencé di dox am ay ay weer ñu commencé mu commencé toog am ay weer yokku ca mu commencé di dox dem ba am at am ñaari at ñetti at ba doxam mat yàlla di ko màggal nag ñaata lay màgg ci bés kenn xamu ko yaayam xamu ci dara ci dara ba mooy màgg di màgg di màgg ba ñëw day xëy day baayam wala mu day yaayam yàlla rek moo ko bi mu dayee di baayam wala yaayam nag yàlla daal di koy yebalal euh, euh, euh, xelam yebal ci xelam ne ko man bindu ma la pour caaxaan de parce que dañu wax ne koo xam ne day bind dara te amu ci soxla kooku day caaxaan te yàlla bind na doomu aadama ci amu ci soxla te caaxaanul lu tax bind ko day waree ak mbaaxam ak man ak bi mën a bindam moo tax bind na ci doomu aadama am na doomu aadama joo xam ne amul ndey amul baay mooy Adama mu bind jom yoo xam ne am na ndey waaye amul baay muy Isa mu bind doom yoo xam ne amul amul amul eh, ndey waaye am na baay am koo xam ne am na am na ndey te amul baay mu bind nag quatrième fois bi mu bind ñoo xam ne dañoo am ndey ak baay loolu yëpp pour wane ne moom lu ko neex mën na ko def mën naa créé lu ko neex bi bi bindee doomu aadama yi noonu wax leen ne l'islam mooy laa tànn comme diine yéen ñëpp da ci du nekk jullit ñi nekk ci effort yi di leen xeex xeexi effort yi ça de date pas d'aujourd'hui depuis bi yonent bi indee l'islam bi nag la ko waa Màkka ne ko li ngay wax moom du fi du fi jóg fii lay am nag fii lañ koy gas suul yonent bi xam na ne yàlla moo ko sant te yàlla am na kàttan moo tax moom faalewu leen ba yàlla may ko ndam ci ñoom ñoom yëpp ba l'islam bi triomphe ci Makka ak Medina ba nga xam ne dootuñ fa jaamu leneen lu yàlla mu tasaare ko ci àddina bi fii mu may leen chance ñu nekk ay jullit fii mu xañ leen chance ñu nekk ay jullit te ñëpp nag moo leen bind te bu ko neexoon wala sa rabbuka la adanaa sa jamian sa borom su ko neexoon ñëpp lay jubal kenn du du kenn du euh, euh, euh, soppi waaye nag yàlla li mu amee ñu ko neex la koy séddale kii jox na ko muy jullit kii bàyyi na ko muy jéefar ndax ba mu bëndee aadama aadama toog bu xoolee na jooram ree bu xoolee càmmooñam jooy xam nga lu taxoon loolu parce que bu xoolee na jooram day gis ngir ngirtal li nga xam ne mooy génn ci moom tey jullit bu leen xoolee ci ndeyjoor yi daf dañuy leer trop mu sante ko yàlla waaye bu xoolee càmmooñam gis njaboot gi nga xam ne ay yëfar lañ doon su ko defee mu jàpp daal di euh, balu yàlla loolu yàlla def yàlla may na lislaam doole te jox na ko kattan tubaab yi li ñuy for for for ak li ñuy bëri bëri ay nganaay lislaam rek lañ ngaa ragal benn benn réunion bu ñu def ci Paris bi koy def ñu ne dañuy seet l'islam bi nga xam ne tey muy jóg rek te te daanu muy dugg sax suñu kër yi nañ seet naka la ñuy anéantir l'islam benn waay jël parole ne leen bu ngeen buggee loolu yàlla yàlla defal leen ko na ngeen xeex ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass parce que moo bi nekk bi di liggéeyal l'islam di dugal nit ñi ci lislaam bu dégg ba cël ci suñu réew mi sax ñëpp dugg nañ fi bay lislaam nekk fi ñu ngi nii tey ci Europe lañ nekk ci Paris la ci euh, Cincinnati lañ nekk ci Amérique waaye lislaam ba ñun ñu ngi ay jullit lañ te mënuñ ci dara ñu ngay bombardé ci biti ñun ñu ngi def liggéeyal lislaam bii ci biir réew mi ñu ngi wax ashadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah te ci biti ñu ngi bombardé fu ñu gis ne lislaam a faral duñ bombardé fii de parce que buñ fii ñoo ciy dee moo tax duñ bombardé fii moo tax fii la yàlla saxal lislaam jox ko fi doole ba nga ku nekk ci réew mi di bëri tudd laa ilaha illallah yonent bi sallallahu alayhi wax ne zikrullahi indal ghafilina kal karri ba'dal farrina mu ne tudd yàlla fañ ko fàtte fañ ko xamulee ku koy def mel ni yaa ngi doon xare ji daw yow nga des di xare kon noonu la mel lislaam noonu la kon nañ fonk suñ diine mooy diine yàlla nañ fonk suñ tariqa bi ndax mooy tariqa Cheikh na Ahmad Tidiane mi nga xam ne lépp luñ naan ci maarifatoog ci xam-xam yàlla mu ngi ko jaarale ci moom wala mu jaarale ko ci xulafaaw bi kon Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu kenn mënu ko fay ndax li mu ñu defal tariqa bi rek mën naa garanti nit nit ki dem parce que tariqa bi boo ci jàppee bët bu danga danga balu yàlla boo ci jàppee da nga bëri looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa boo ci jàppee da nga wax bëri looy wax laa ilaha illallah ñett yooyu nag ku ci tax ko taxoo ba dee foo war a jëm moo tax benn waay laaj na beneen waay ne ko yéen da ngeen yéen tijaan wax ne yéen ku ci dee aljana la jëm mu ne ko waaw mu ne ko feen feen ko jëlee mu ne ci yàlla ko wax ci alquran mu ne ci naka mu ne yàlla moo wax ne képp koo xam ne bu bu ma tooñee balu ma danaa ko baal te tijaan bi bu set bu xëyee dana balu yàlla bu ngoonee dana balu yàlla te yonent bi sallallahu alayhi na hadis bu wér di wax ne yàlla day talal loxoom ne ana ñu ma tooñoon bii ma baal leen balaa bés bee dem ku balu yàlla yàlla baax la bu bu bu guddi gi ñëwee mu ne ana ñu ma tooñoon ci bëccëg ñu balu moom ma baal leen te ku yàlla baal aljanna nga jëm kuy ku julli kuy bëri julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aljanna nga jëm kuy wax laa ilaha illallahu aljanna am na benn waay boo xam ne amutoon dara ci lu baax lu mu waaye nag benn bés dafa yàlla daf koo loxo benn loxo suuf ne suuf bii maa ngi lay seede loo maa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun muhammadun rasulullah daal di koy sànniwaat nekk ca la mu nekkoon bi mu dee am benn waay bu ko gént gis bés ci taxaw ñu di ko isaab biñ génnee ay carnet am quatre vingt dix yoo xam ne yépp ay péché la yépp ay bàkkaar la yàlla ne xoolal leen sama jàmm bi mu am ci lu baax ñu seet seet seet gisuñ dara ñu ne ko gisuñu dal bi mu seet leen man kenn duñ dal tooñ kenn ci sama kanam tey ñu seet ba gis ko suuf soo suuf mu tibb wax ci ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ñu ne ko lii lañ ko gisal mu ne kon teg ko teg leen ko ak mu dend ak ay bakkaaram ñu teg suuf si mu dend ak ba juróom-ñeent fukki biñ tegee suuf bi rek mu daal leen balancer yàlla na ko kaay def aljanna mu ne ko dëgg dëgg seer ma yóbbu aljanna waaye du suma liggéey de man ba li ma naan def rek mooy safaan waaye nag si yermaane moom ma yóbbu aljanna mais gis nga sell bi bi mu ko defee yàlla na ko nangul te bu ko bu la yàlla nangulee jeex na kenn mënul too euh, euh, ma ma la dévier nañ fonk julli nañ suñ julli wax ne man képp koo xam ne yaa ngi ànd man ngay def li may def man du ma tàddeel julli képp koy suma taalibe warta tàddeel julli man du ma tàddeel koor képp koy suma taalibe bul tàddeel koor wax na ko ba ne xawaaniyal mën naanu fil asfaari falastu muxtaajan ila iftaari man suma boroom dëgëral na ma ba nga xam ne bu may tukkee bu ma fi nekkee em du dog koor mukk ci àddina loolu yàlla yàlla yàlla ko jagleel kon ku xam ne lu yàlla digle nga def ko yàlla lay fay du bàyyi lay bàyyi amul fay bàyyi dafa yaakaar fay moom moo tax mu wax ne lépp lu ma liggéeyal yàlla li ma ci yaakaar mooy lan mooy li wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy rahmatullahi te mooy ramm yowmal qiyaamati man rammam googu rek laa yaakaar parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam mos naa toog ci biir Makka Medina benn yaaram jógee fële ci àll bi ñëw di ko jowaat eh, eh Muhammad eh bi ne bu ba agsi salaamaaleykum la mu ne ko man dama laa bëgg te xam naa ne ëllëg fa ngay nekk du ma fa àggi moo tax dama bëgg di nga may ma saa yoo génnee rek ma ñëw seet si la xool la bànneexu ci yow ndax comme àljanna du ma la gis yonent bi ne ko déet nit ku nekk ka nga bëgg ngay àndal yowmal xiyaamati saxaaba yi ne nañ niñ merewoon ba bu ko bu ko buñ ko jotoon ray ko ba yonent bi taxa bu tax bi mu taxee yonent bi def déclaration boobu mu ne ñu ne waa ji daal koo ñu gënal képp ku dul moom tey bi mu ko defee yonent bi benn bés mos naa ci këram benn waay ñëw ko man day sama doom dafa koy te awma ko muuree bi daal ne saxaaba yi ku nekk na dajale li am ñoom ñëpp ku nekk dajale li am bi ñu ko joxee waa ji yonent bi dafa kontaan la mu ne kontaan mu ne ñu mën ak sa mbaax gi ni mu toll nga dima def lii defal lii lii dafa mën a faj suma aajo yonent bi sallallahu alayhi wa yi kenn ku nekk na dem ci benn gox ngeen dajale lu gërëm la ñuy dajale di dajale di dajale ba indi lu jóoru yonent bi sallallahu alayhi oo waa ji mu ñëw mu daal di koy jox na ko léegi xanaa kontaan nga mu ne ko waaw léegi de moom kontaan na kon moom noonu la dafa defal nit ñi toog na ci euh, euh, euh, Madina di sedd seddale ay màng yoo xam ne dafa ñëwoon yonent bi di ko seddale benn miskin ñëw bëgg ñaan ñaan yonent bi jox ko wàllam ndax moom miskin la bi mu laata ak si yonent bi fekk xaalis ba jeex mu ne sang bi man day ab miskin la te awma lu ma lekk te maa ngi bëgg a dee xiif seetal ma waxe seetal ma pexe bi ne ko demal ci kër ma du sama doom nga ne ko sa papa nee na nga le nga leyal ma jox ma ma lekk bi mu ñëwee ci kër Sey Seyda Fatima Seyda Fatima ne ko ah yàlla xam na ne suñ suñ kër gii safar takku safara takku fi weer ndox ak tànn bala dañuy dundee te am tànn amul amul dara amul ko fi waaye nag comme yonent bu ma la yebal du ma la bàyyi nga delloo loxoy neen mu tekki caq boo xam ne yonent bi moo ko joxoon nay Khadija ba mu ko takkee Fatima donn ko ci yaayam mu ne kon càq bi laa lay tekkil nga dem jaay ko boo ko jaayee jënd ci la la la mën a lekk waa ji jël càq bi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah man de Fatima sa doom dem naa ci moom waaye day càq bi rek la ma jox ne amul lu ñuy lekk foofu ci këram yonent bi tey càq bi ne kan mooy jënd caq bi njëg gu baax ma gàddul ko aljana ñu def vente aux enchères kii ne joxe naa nangam kii joxe nangam ba ba ci gën a gën a seer yonent bi daal nangu ko daal di jël alal ji nag aw miskin mi mu ñëw mu ne ko am lii soo demee da ci mën a toppatoo sa bopp te itam da nga ci mën a fexe ba dootoo wër di ñaan noonu ko yonent bi defaloon sallallahu alayhi wa sallam bi ko bi mu ko defalee noonu ki jënd càq bi ca mbooloo ma daal dem ba mu jël càq bi daal di koy jiw gëtt ba mu tooy mu jël benn jaamam na ko jëlal càq bi dem jël ko sayyidatuna Fatima ne ko càq bi addiya la kilo ko jox moo la ko jox addiya ak jàmm bi ko indi mu ne mu ne si saa si rek lay fàtt lay ne ko wala naa dootoo jaamoo di kenn am caq bi mu delloo ko ci baatam parce que foofu foofu la nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés naa nekk di doxantu génn romb benn xale boo xam ne mu ngi toog di jooy mu ne ko xal doom dooy jooy ne ko man de dañ maa yónnee woon ci bitig bi may jëndi lekk pour suma sang yi xaalis ba réer ma te man de dañ maa dañ may mbugal toujours boo ma juumee fekk benn waaye moo ko indil juróom benn dërëm yonent yi de man danaa ci dem jëndi am mbubb parce que boobu mu ngi rafle bi mu gisee xale bi di jooy mu ne ko loo lay jooyloo mu ne ko dañ maa yónni woon xaalis ba réer mu ne ko ñaata mu ne ko ñaari dërëm mu ko ñaari na ñeenti dërëm mu dem ci euh, marché ba dal dina gis benn waay ne ko fexeel ba jaay utal ba mbëpp moo xam ne ci ñeenti dërëm la jaar waa ji daal di koy jox benn mbubb yonent bi sol ko génn gis miskin moo xam ne daanaka solul mbubb mu dal li koy jox mbubb bi ne ko yàgg na yelloo mbubb bi ci man parce que man am naa lu ma sol